ñi moom doon ngeen ñëw xam ni tànqum lu woo leen ko benn yoon léeg-léeg sax ngeen won ko loo xam ne moom fàtte woon na ko bu yàgg-yàgg ngeen génnewaat ko won ko ko te day day fekk mu soxla ko lool kon nee na amul seen pay mi ngi leen di ñaanal baax ngir sëriñ Tuubaa yéen tam yéen ñii ngeen xam da ngeen a dend ak antenne bi yéen ñii xale yu góor yooyu ndem bu ngeen mënta déglu kàddu yu sëriñ bi génn may leen ñu ngir sëñ Tuubaa comme yéen foofu leen ndigalu sëriñ bi toll génn leen sëriñ bi nee na mboolem taalibe bu fi teew mi ngi lay sant di la gërëm nee na tax di du dool ci cant gi moo di daa amul lu dul yéen te yéen tam xam na ne amoo leen lu dul moom laa laasim sëriñ bi nee na amu amuñu amoo leen lu dul moom nee na loolu moom leer na ko nañ te nee na loolu lenn képp moo ko waral muy sëriñ Touba. nee na sëriñ moo mu ko waral nag nee na mi ngi ñaan ngeen ñaanal ko ngir jëmmi sëriñ Touba mi waral lépp li ngeen di xool ci jëmmam ji muy sëriñ tubaa nee na saa bu ngeen xëyee saa bu ngeen ko xalaatee yàlla na ngeen koy gis ci jëmmam ji ndax nee na sëriñ bi rek a ko ñor nee na mi ngi leen di ñaanal ñaan goo xam ni. lim mën a wax ngeen dégg ko li muy wéet di ko def moo ko ëpp ndax neen da leen di ñaanal bay fàtte boppam nee na moom saa su nekk bu jullee ak buy jàng ak mboolem lu muy def ci lu baax neen da leen di ñaanal bay fàtte boppam nee na amul ñeewantal ci yéen lool ngir lan xam na ni yéen amoo leen lu dul moom nee na moo taxit mi ngi leen di ñaanal bu baax baax mboolem lu ngeen di sàkku nee na mi ngi ñaan ci sëñ tubaa mboolem ku leen yëkkati yàlla bu leen attan te mboolem lu ngeen yëkkati yàlla na ngeen ko attan ci doole Sëñ Tuubaa lu ngeen bëgg yéen ko xam yàlla na ko am li ngeen di sàkku yéen ko xam yàlla na ngeen ko am ci doole Sëriñ Tuubaa soxna yi amagut bërëm kër bu ñu fi jógee yàlla nañ ko am góor yàlla yi nga xam ne amagun soxna yàlla nañ ko am sëriñ bi nee na ñi bëgg a tukki yàlla nañu tukki nee na ñi nga xamante ni sa borom dogal na fii la seen teraanga nekk yàlla nañ fi am ay teraanga yi nga xam ne duñ ñee sax ñu tukki ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ji nee na mboolem lu bëgg daal fas ko ci sa xol mi ngi koy ñaan ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ak borom bi te xam ne borom bis bi mën na ko ngir jëmmi Serigne Touba te nee nag mi ngi leen di ñaanal bu baax loolu daal nee na nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax alaaj Cheikh Mbacke ji ak mboolem ñi nga xam si ñi ngi ci ginnaaw suñ Modou Mbaye ak mboolem ñi toog ñëpp sëñ Xaadim Gueye sopp na bi sëñ bi yow mbokkum Serigne bi nga mi ngi lay ñaanal bu baax sëñ Abdoulaye Jaxate xam naa ko moom moom nit ku baax la bi nee na mi ngi leen di siyaar yéen ñëpp te di leen ñaanal sëñ Asmaaw sëriñ bi nee na xam na xam na fi nga ko teg nee na mi ngi lay ñaanal bu baax waaw Yaara mbake ñu ngi lay nuyu baax te di la siyaar yow sëtu sëriñ Abdou nga yaag sëriñ bi yéen a bokk Cheikh Abdou Lahad sëñ boo xam naa ko ndax suñu am sama mooy wajuram moom sëñ Abdou Lahad muy sama wëllëre wu yàgg sëriñ bi doon nit ku baax nag Mbàkke yàlla na nga fi yàgg lool te ànd ku wér gën naa laa jàpp ndax ñun ku ñu fekkanteel ci sëriñ bi mun la jàppoon benn yokk nan ko ndax amuñu lu dul moom kon gën nan laa fonk gën nan laa jàpp ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan nga gudd fan lool te ñaanal ñu sëriñ bi suñu borom guddal aw fanam te wéral ko ngir jëm sëriñ Tuubaa yéen itam ndaw ñi sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal te di leen soññaat bu baax ci góor góorlu ak fonkaat seen bopp bu baax a baax ndax nee na nit du yëg boppam waaye day xam boppam nee na mi ngi ñuy fo mi ngi ñuy soññaat baax ñu gën a xam suñu bopp xam sa bopp bopp nag bokk na ci jaamu yàlla nangoo jàng bu dee toll nga ci njàng fonk say waajur te déggal leen sëriñ bi nee na mi ngi ci soñ ñëpp ak nangoo liggéey ngir jëmmi sëriñ tubaa ji ndax nee na jamono ji doy na waar lool waaye nag nee na ki nu wéeru muy sëriñ tubaa nee na lépp mi ngi ko koy diis rek te xam ne mën naa saafara lépp waaye nee na kàddu yooyu daal mi ngi ñu koy dénk bu baax buñ ko gisee ak buñ ko gisut ndax nee na mu wéet ak mu wéttaliku xelam du jóg ci ñun tam mi ngi nuy ñaanal nee na ndax li mu mën a wax lépp li muy ñaan moo ko ëpp mi ngi leen di ñaanal baax a baax ngir jëmmi sëriñ tubaa ji kon kàddu yooyu la sëriñ bi ne na ko wax nee na nag kàddu kàddu sant yi nee na da ko wax fii rek ngir ñu dégg ko ndax am na ñoo xam ne bu ñu wàccee mën naa am duñu jaar ci saal bi waaye nee na am na kàddu yu des yoo xam si dañ koy mottalee ci suuf ci saal bi kon ñu tàllal loxo yi sëriñ bi def ñaan bu ko defee ñu ci suuf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi siyaar bu baax a baax di am mbégte kontaan ak mbokk yi seetaan yëpp di baal ñëpp aax di baal ñëpp aax di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu fekk ko déwén yu bëree bëri di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom bàyyi ko fi ba naa di fas yéene liggéeyal Serigne Touba yëpp ñu yëpp ak di ñaanal Serigne Sidi Mbacke ak rek waaw sant bu baax a santaat yàlla ci fekke gi ñu ko fekkewaat waaw ndax ku ne xam na dañ ko def ba ci beneen anam ren jii di fan juróom-ñetteelu édition waaw mooy loo xam ne mbégteeg tawfeex bu ñëwee bi ñu ci mooy liggéeyal Serigne bi day xam na ne jamono ji ni mu doxee ak ndigalu sëriñ bi te ay taalibe moom seen i wutu jëfe lu dul ndigal rek waa ndigal loola ci lañ tënk ba ku ne xam na ne ku xam bis bi ni mu daa demee ni mu daa baax ci ay baax ñu toll fu ne nit di fa jóge ci di xam ne daal su suñu fomm donte fomm yu bëri bu ñu soppee doxee nu màggal yëpp bu ñëwee rek moo tax soppi ko defee ko nii nga xam ne ci kaw te yàlla xam na ne sama téléphone jëluma ko woon di wax la bis bi wala maa ngi waaw waaye nit ñi yëg-yëg nga def yëf ku ci nekk am yéene ne daaw damaa ñëwoon siyaare si ñëwaat siyaare si am mbokki daayira yi mbokki taalibe yi waaw wala ree jànkari ne xam na ne ñoom ñëpp ñu jànk ñëpp daa ñëw ndaxëy dara ñu ñëw ngir baaxam tam noonu rek ñu ñëw aj ko noonu ci kaw terrasse bi tàngal nañ ay kafe defar ay beñe defar ay ay reer yu am solo séddale ko ca koñ bi fi ñu ko daa defee ba noppi séddale ko borom sare bi yóbbu kii yëpp de tas ko yóbbu ki daal alxuraan yi waaw ko bisi bi comme ni ko sëriñ bi ndigal di ko sëriñ bi joxe ndox ñu def ko ne ci kaw mbooloo mi fi nit ñi gisa ko si néew sax moom mooy mbokki daayira yi gone yi rek gone yi doom yi yooyu noonu ak mbokki koñ bi daayira di sant ñëpp tax ku ci nekk defe nga na ko daa defee waaw bi bi yëf yi amul tamit ku ne ñëw na indi sa àddee muy daayira Xidmatul Xaadim bu mag bi sant gone yi bu baax a baax a baax a di am mbégte ak kontante ndax lii day loo xam ne ndimbalu sëriñ bi lu sëriñ bi di wane la ndax jamono mu tëdde noonu ku ci nekk mënoon nga ne li ñuy liggéey te ñu yooyu def nañ nangam ak nangam waaye ñu dajale liñ am ak bëri te liñ daa def yëpp dañ koo yokk waa kon loolu boobu ñu wane sëriñ Tuubaa dëgg la ci ñoom ah, di ñaan suñu borom taxawuñu kàttanuñu bu baax baax ba liggéey bi fa seen liggéey Serigne Touba mooy gën mu kawe njort ci doole Serigne Touba ah, di dox na ay taalibe lañu rek. bis bi bu ne defeen bi comme jamono ji ku ne xam na jamono egg si nañ ci def ko ñu boole ko ñu defandoo ko lépp seen tuuti ci ay liggéey ndax xam nañ jamono ji ni muy doxee waaw ndax seen pas laa xam. te pasos boo ko bëggoo ko ñu koy defee day doon daa doon loo ne muy taw beex joo xam ne xam naa ñoom li leen toll mu jaral leen ba dama dem ba am kersa léeg-léeg dama leen doon wax sax naan dañuy baas ak dañuy def nangam waaye booba am kersa sax jàkkaarloo ñu ko def ndax bëgg gee ko def léeg-léeg ma tooñ leen ne eh, ndigal moom waaw ndax ne ñoo xam ne sax xam naa ICT yi lañ def la ba di leeral ñu jàpp na woon na comme dañoo baas wala yooyu dara defuñ ko baas yooyu baas yi daaw la woon ñu mm-hmm. ngi benn statut bu mu dugaloon nit ñi jàpp na ay baas laak ay yooyu mm-hmm. waaye ku ne xam ne dëkk bi ak ndigal ak ku ne xam Cheikh Abdoulaye nag ni mel Serigne Touba mm-hmm. kenn du ko tudd ci dara wala def ci dara di jéggi ak taalibe foofu noonu waaw mu tax xasul fukki xel xalaatu di def loolu surtout ànd ak i ndaw war nañoo fexe loo xam ne mooy leen tàggat ci taalibe mu rab sañ ngaan na ñëwee ni ma thème bi ci lan lañ koy waxtaan mu ne ko ci taalibe ak pasteur ak jàngal ndaw ñi lan mooy ak murit bañ nekk ni murid laa rek wala diwa di loo tax mu andi thème bi ci noonu. waaw waaw mooy nii rek jàpp too bàyyi rek xam na sëriñ bi rek a fi nekk. waaw te àdduna moom nii rek yàlla indi wuñu fi ngir muy neex sax suuf waaw moom dañu fi indi ngir tey mu neex suba mu mel na ne waaw saa bu demee ba jamono soppi ko nag ñu fàttaliku la ci ginnaaw xam ne kat daana neex daana def na waaye jamono moo tëdd foofu. xam ne jamono ji fi mu ko rek xam na ne àdduna sépp la waaw yàlla dimbale ñu toll ak jamono joo xam ne am kilifa goo xam ne moo sagu murid yëpp la ñu bàyyi ko xel nga xam ne bu jëfee rek ñëpp xam ne sëñ bi jëf na waaw di ko diglu ci lépp nga xam ne tafi ñu jëmale foofu rek la waaw mu di ko santa di ko ñaan mu yàgg fi loolu ndax yàggam fi njëriñu jullit yëpp la njëriñu waxuma la murid waaye njëriñu jullit yëpp yëpp yëpp waaw di sant bu baax a baax a baax sant yàlla am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu yem di sant kilifa yi fi teew sëñ Gana Messere waxtaan bu am solo sëñ sooye bu mbuub ak waa kii beeg yëpp ak day gone yi ñoom Cheikh Faye ak daay ñu gaas jaay gi daayira xidmatul xaddim bi seen taxawaay yi seen niñ def lépp loo fi gis rek ñoom ñoo ko def te defuñ dara war noppi def taxawaay am ci coono boo xam ne si nii te lépp bëggoon mu yem ngir bis bi rek ñu xam ne dundal nañ ko image yi jàll rek yàlla xam na dañ ñëwoon ngànn bu ñëwee sax ci saal bi lañ koy tëj rek ci internet bi jël ko nga xam ne image bi jàll bu jàllee ni ñi xam ne kat bis bi waxtaan waxtaanee woon nañ li léeg la ndax loolu rek la woon waa di am mbégte kon santre sant waa Infos Rewmi moom ñaare moom ak waa euh, euh, suñu info waaw suñu info waa moom ñoom it di am mbégte kontaante bu baax a baax a baax ci taxawaay bu rafet bi ndax yàgg ngeen fi bay fi tàmbalee ba tey waaw coono boobu yooyu yëpp taxawaay boobu ngeen am yàlla suñu borom taxawu leen ba ngeen bokk ci site yi gën a mag ci ci ci ci àdduna bi waaw li ngi am ci lu kawe seen njor waaw yàlla taxawu leen sàmmal leen boppam ndax yéen ngeen am seen yëfi bopp yaato yaatu ba yow leen ñu kenn waaw ci lépp kontaan na daal fu kontaan te eh, ayam foo xam ne fu tam tàmbale rek amu jamukaay waaw di sant ñëpp daal lu ci dënk ñu xam ne matati doomu aadama dëj jóg ñu xam ne dimbalu sëriñ bi la di ñaan feebar bi yàlla suñu borom jëlee ko fi waaw ñu fàtte ko mu paase ko dëgg ma li ci kanam